waaw collectif bi ñun suñu jëkkër ay euh, observateur lañu observateur de de de la pêche. seen jëkkër yi seen borom yi suñu jëkkër yi suñu borom kër yi. Ah. xam naa bu ñu demee ba ci biir naa la expliquer la mooy observateur. Mm. de la pêche mën naa ci dem sax. Mm-hmm. mooy agent yi gouvernement bi jëloon recruter leen ñuy sàmm kaaraange géej gi di xool di ko saytu ndax bateau étranger yi fi doon ñëw. Mm-hmm. jël si ay observateur bato bu ñëw rek am na benn observateur bu ñu dugal ci biir te observateur bi mooy saytu ci biir géej gi ndax mbaal yi ñuy mbaale baax na fi la fi la ñu war a aw ci géej gi lii la ñu def lu ñu def ñoom ñoo koy saytu. Mm-hmm. bu ñuy dem na dañuy yóbbu ay rapport bu ñu yóbboo ay rapport lu ñu gis ci géej gi bind lu def ci géej gi bind bu ñu defoo waa bato yi bu ñu defee nag sax noonu ñu bind bu ñu ñëwee. enquêteur bii lu baax lañ def xayru bu amee tuuti infraction nag ñu wax ko ñi leen yabaloon ñu dem yóbbu leen ñoom dañ doon naviguer di naviguer ba ci yàgg gouvernement bi di damay jël ay observateur yoo xam ne ñooy saytu comme ñoo ko waxee sànq rek géej gi di xool di topp géej gi observateur de la pêche ñuy dem 82 la ko euh, état bi kii di recruter recruter ñooñu. jël leen bi mu lay jëlee nag sama boroom kër yi ci lañ ñoom la woon ñu nekk di dem géej di ñëw di dem géej di ñëw sans salaire prime de mer rek la amoon bu ñu demee kenn du leen fay ñu ne nag dañuy xaar en attendant xëy na statut bi ñu defar ko ñu commencé am ay salaire ak yooyu ñuy dem di dem di dem di dem di dem 82 ba 2002. vingt ans de lañ leen ameel. vingt ans vingt ans de salaire vingt ans de salaire yooyu ñoom bu ñu demee géej ba ñoom kenn du leen fay prime de mer rek lañuy am xam nga loolu doy na waar de. Mhm. ñu koy ñuy muñ naa mën naa am situation bi rek la ñuy dox di dox di dox di lijjanti di dox ñu am sunu borom kër boobu ñu sox ñu xamuñu lu bari ci affaire yi ñun jabar yi. bu demee ba mu yàgg nag ba deux mille deux. la ñu mujjee am ay salaire xam nga amee nañ leen vingt ci nguuru Abdoulaye Wade. waaw ci nguuru Abdoulaye Wade je pense bien waaw amee nañ leen vingt ans de mhm. léegi nag deux mille deux la ñu commencé jox ay sa ay kii. ay payoor ay salaire mhm. waaw léegi euh, boobu temps ñoom ñi ngi dem géej ba tey ñoom di ñëw continuer seen dem géej bi ñu continuer seen dem géej di ñëw ñu leen di fay. ñu leen di fay ñu topp di toppandoo di toppatoo ban ñu leen lii de da leen ko amel dañ leen ko war a fay état daf leen ko war a fay ñu prouver prouver leen ni état moo leen war a fay ñoom tam ñu topp ci dox rek lijjanti dox def lu ne 2002 laa la wax de. 2002 hmm. ba 80 ba 2002 ba 2000 2002 2002 ba 2000. 2015 ba 2021 ba 2021. deux mille vingt et un bii lañ ñu soog a ñoom ñamal dara. ci nguuru Macky Sall. ci nguuru Macky Sall. Hmm. ñu ñamal ñu ku nekk am nga le quart de ton argent maanaam ku nekk bu la waroon fay ñeenti ñeenti million benn million nga am dama wax noonu rek supposons. Hmm. Hmm. waaw du ma dugg ci détail détail bu la waroon fay euh, quatre millions. benn million lañ la jox. dañ koy diviser par quatre jox la benn part. moom lañ leen avancé jox leen tuufe euh, euh, saañ kii leen ko daal defalee leen ko danañ ko defalee nguur gi. d'accord waaw ni ko ni ko defalee ñoo leen deux mille deux deux mille deux mille vingt et un la hmm. leen deux mille vingt deux dinañ leen mottali. deux mille vingt deux xam naa mën na leen comprendre sax ne Covid bi moo amoon ak yooyu affaire yi am. ñuy wax di lijjanti mais dara sottiwul. mais tey lan mooy problème bi. tey lan mooy problème bi mooy dañu ñëwaat nii. Hmm. pour di ñaan di ñaan max Sall euh, président Macky Sall ak premier ministre am ak ministre finance ak agent judiciaire agent judiciaire euh, surtout ndax dañu moo ñu war a fay boobu ba léegi ñoo ñu war a fay.